association de commerçants et industriels du Sénégal moo ñëwoon tey ngir joxe wàllam ci dimbalante jàppalante gi nga xam ne gis nañ ne askan wi ñëpp maase nañ jógtee ko ngir mën a am saafara waaye mën a daan tamit noonu bu mag bi nga xam ne moom lañu jàmmaar lool muy tawat ji dugg ci réew mi di mbas ñu koy woowee coronavirus bi ñu amee yéene bit ñu jóg diirub ñaari fan ci njiitul le président Khadim Sylla mu nekk nii ci sama wet ak mboolem mi nga xam ne ñoo nekk nii di ay membre du bureau ñu wër suñuy membre yëgal leen mbir mi laaj leen ñoom it ñu joxe ci joxe bu ànd ak yéene ci loo xam ne ñun it amuñ ci benn coono joxe boobu nag biñ ko boolee ñiy joxe xaalis ñenn ñi joxe ay dons en nature mu ngi toll ci ñaar fukki million ak ñaar mm-hmm. waaye bu dee ci li nga xam ne joxe nañ ko ci ay jumtuwaay yoo xam ne dafay jëm ci wàllum cet ak wàllum wér-gu-yaram toll na ci juróomi million ak ñaar fukki junni yu manqué junni ak ñaari téeméer loolu nag ñi la tëddee 336 ñetti téeméer ak fanweer ak juróom benn bitéelu eau de javel ci fukki carton ci paquet yu mouchoir amna na ci

waaye juróomi téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom ci ay combinaison di li mét yére yi médecins yi di sol bu ñu nekkee ci biir euh, bërëb yi ñuy fajee ñi nga xam ne ñooy tawat loolu tamit toll na ci 1 million 855 mille waaye am na 432 bouteilles 432 butéel ñeenti téeméer ak fanweer juróomi butéel yoo xam ne ay gel yi ñuy defalee def ci loxo ngir lay ngir ray li nga xam ne mooy microbe wala virus yi mm-hmm. loolu tamit mille la téeméeri junni ak ñaar fukk yu toppal juróom benn junni ak ñeenti téeméer waaye am na ñaar fukk ak ñaar paani raxasu yu ànd ak satela am na tamit fukk ak juróom ñaari carton yoo xam ne ay saabu ordinaire moo ci nekk saabu yooyu wax nañ ne bokk na ci gën a gaaw ngir rey microbe loolu nag biñ ko boolee lépp di matériel bi di jumtuwaay yi ak xaalis bi toll na ci ñaar fukki million ak juróom-ñaar yu tegal ñaar fukki junni yu manqué junni ak ñaar téeméer may profité ci occasion bi du ci woo woowaat suñu membre yi ni bi ñu leen woow ci laaj bi nit ñu ci wuyoo bu ñu leen woowee ci sensibilisation bi nañ ñu ci wuyoo ñu ngi leen di xaar nu ko raw waaye duñ ko yemale ci ñoom dong bépp sénégalais boo xam ne suñu kàddu jot ci na ci yow ak nu ci jote na nga xam ne ci woote bi nga bokk. ñun nag ay commerçant lañ marché yi nga xam ne ci lañ nekk ñi ñu fa nekk di fa jaay. ak ñi fay ñëw di fa jënd bokk nañ ci ñi nga xam ne ñoo gën a exposé ñoo gën a nekk ci maanaam yi jekk ci maanaam ñoo gën a war a fagaru mhm. ci tawat ji loolu nag euh, moo tax ñu jàpp ne liggéey bi foofu la war a gën a gën a gën a amee solo te lépp lu mu war lu ci laa lu mu laaj danañ wéyal incha allah di ko ci def kon ñu xam ne euh, foofu rek la mbiri tollu